Demba Seydi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Soxna Awa. alors ngay coordonnateur régional bu ONG Publiez ce que vous payez nekk ci Afrique francophone organisation boobu lii sax euh, lan moo ko sabab. alors organisation bi tudd Publiez ce que vous payez dafa di kuréel goo xam ne dafay dajale yeneen xeetu organisation yu bëri yu toll junni ak li teg ci àddina bi ba pare ñuy liggéey ci li nga xamante ne mooy yor. bu sell ak bu set ci wàllu mbell mi maanaam lépp luy pétrole gaz ak mine nuñ koy joree fexe ba réew bi ci mënta am ndax réew moom mën ko jëriñoo ñu dëkk ci réew mi mën ko jëriñoo parce que li ñu set woon boobu ba léegi mooy euh, réewu Afrique yi dañuy am ressources naturelles yu bëri waaye du leen amal njëriñ ndax compagnie étrangères yi ñooy ñëw di ko exploiter di ko yóbbu donc loolu sabab ñun suñu liggéey maanaam fexe ba doomi aadama yi nga xamante ne ñoom ñooy yeewoo ci réewu Afrique nga xamante ñoo am jëm nag ci euh, contrat yi nga xam te ne war nañu ko saytuwaat ci conseil des ministres fa la tukkee décision boobu lee ñu ne daal balaa ñuy renégocier benn contrat faw rek ñu taxawal fi ab benn comité boo xam te dina ko mën a saytu ana nan nga jàngatee dogal googu lee nga xam te ne tukkee na ci état wu Sénégal. waaw dañu bëgg fàttali ni balaa njiiti réew mi di jël pouvoir bi ci mars deux mille vingt quatre loolu dafa nekkoon ay engagement yu mu jëloon bokk na ci bu ñu gagné élection yi ñu càmbaraat contrat yu bëri rawatina contrat yi nga xamante ne moo leen euh, euh, lié ak yenn compagnie étrangère yi exploité pétrole gaz ak mine te yàlla def ñoom ñu gagné élection yi tey jii euh, décision bi ñu jël dafay dëggal seeni engagement boobu ñu jëloon benn ñaareel bi mooy defee ko ci comité dafa di loo xam ne doxalin bu ñuy rafetlu la ndax boo defee comité bi dina permettre ñeneen ñi nga xamante ne bokkuñu directement ci nguur gi ñoom ñëpp ñu ñëw bokk ci comité bi mën na nekk sax parti opposition yi mën na nekk société civile mun na nekk ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak ñi biti réew yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci nan la ñuy defee ay contrat lan mooy contrat yu baax ci secteur bi donc loolu dafa di loo xam ne doxalin bu ñuy mën a rafetlu la ndax dina mën a jël en compte préoccupation képp koo xam ne am nga xalaat bu bees buy jëm ci wàllu euh, révision contrat yi beneen bu mujj bi mooy boo seetloo euh, daanaka ñaari régime yi fi jàll yëpp ñoo ëpp lu ñu joxe woon ay contrat ndax joxe tuñu contrat bu bees boobu ba léegi donc ñaari régime yooyu bi ñuy joxe contrat yi xëy na am na ay mbir yoo xam ne xewoon na ci àddina bi boole wuñ ko ci wala am na léeg-léeg doxalin yu bees yi xew ñoom sooraale wuñ ko woon wala prix yu bees yi xew ci secteur bi loolu yëpp sooraale wuñ ko woon ba tax na léegi nguur gu bees gi jàpp na ni euh, il faut ñu saytuwaat loolu yëpp càmbaraat ko su ko defee ñu définiraat ay doxalin yu bees. alors euh, yenn risque nag la mën a jur tey càmbar yenn contrat yi. waa xam nga contrat buñ koy bind buñ koy xaatim dañuy ciy boole loo xam ne dañ koy tuddee. clause de règlement des différends maanaam bu amee ñàkk déggoo ci ñaari ñi ko sikk ñu xool nan lañu koy fajee nañ koy fajee bokk na ci ñu saytuwaat contrat bi càmbaraat ko su ko defee ñu indiwaat ay euh, déggoo yu bees donc loolu mu ngi ci contrat bu ne contrat boo liir même contrat de travail loolu da ciy bokk beneen bi mooy sunu loi ci boppam prévoir na que bu amee kenn koo xam ne gisul boppam ci contrat bi nga xamante ne moom la ñu xaatim war na mën a laaj keneen ki ndax duñ xoolaat déggoo bi ñu amoon ci mbir mi ndax am na lu bees yu xew ci secteur bi te ñun jëluñu ko woon en compte donc élément yooyu yëpp boo ko boolee dina permettre ñu néewal li nga xamante ne moom mooy risque yi waaye nag risque du ñàkk parce que nag fii ay mbiru intérêt la ku nekk da ngay défendre sa intérêt société bi moom euh, am bénéfice moo ko amal solo bu fekkente ne li ñuy saytuwaat dina wàññi ay bénéfice am euh, ala kulli xaal dina am lu mu ci lu ci coow mm-hmm. donc loolu yëpp li koy indi mooy contrat yoo xam ne si ñëwoon nañ ko ñu teg ci ay clause yu leer waaye nag risques yi du ñàkk bokk na ci risques yi ñu yóbbu ko ci tribunal boo xam ne daf ñuy uti xaalis bu bëri parce que loolu la ñuy tuddee tribunal arbitrage boo xam ne ci réew la nekk dangeen di jaabante di yéeg di wàcc ba mbir mi bu muy sotti mën na yàgg mën na laaj xaalis bu bëri ay mission yi nga xamante na ngeen koy def donc loolu yëpp risque yooyu bokk na ci li ñuy war a sooraale ci bu ñuy réviser contrat yi. waaye en tant que gouvernement bu bees euh, dafa mel ni lu war la ngir ñu saytu yenn contrat yi laata ñuy sóobu ci liggéey bi. waaw saytu contrat yi dafa di lu jaadu dafa di lu jaadu ndax defoon nañu ay recherche yu bëri yu wane ni que euh, contrat yi dafa am lu ñuy tuddee déséquilibre maanaam doole yi yemul dañu gis ni maanaam ci wàllu production kiy exploité lu muy jël moo ëpp doole. am na fi ay société yoo xam ne ñu ngi fi fukki at ba tey li ñu jox Sénégal néew na torop boo jëlee secteur bi yëpp nga boole ko ba tey bi ñu commencé mat na fukki at ak li teg ba tey Sénégal nu ci am ci at mi lu toll ni téeméeri ak euh, juróom fukk milliards te société boo fi gis minimum at bu nekk mu ngi am lu toll ni ay deux cent milliards ñaari téeméeru chiffre d'affaires ñaari téeméeri milliards ci chiffre d'affaires donc loolu yëpp mais serait-ce boo xoolee ci wàllu boobu nga xam ne Sénégal ba tey jotul li mu war a jot donc lu jaadu la nguur gu bees gi xool lan mooy intérêt réew mi ndax ñu mën see jot. mais est-ce que contrat yëpp la ñu war a mën a examiner. waaw dañu jàpp ni comité bi bu ñu xasee ba teg ko dina définir lu ñuy tuddee périmètre maanaam yan compagnie mooy la ñuy jël en priorité mais gëm naa ne compagnie yi nga xamante ne commencé nañu produire déjà ñooñu dinañu bokk ci li nga xamante ne ñoom la ñuy def priorité ensuite am na yeneen compagnie yoo xam ne. Euh, commencé guñu exploité ñoo ngi ci euh, phase exploration ñooñu tamit dinañ bàyyi xel si ñoom bu loolu weesoo am na ñoo xam ne dañu déposer seen dossier pour am contrat su ko defee ñooñu bala ñu leen jox contrat modèle bu bees bi nga xamante ne Sénégal dina ko définir dina leen concerner su ko defee bu ne mën cee gis bopp. alors pour contrat pétrolier yi ak gazier yi lan lañ ci mën a xaar. waaw am na ñaari compagnie yi nga xamante ne commencé nañu exploiter mooy compagnie Woodside bu exploiter pétrole ba ca Sangomar. ak compagnie bu tudd Forteza bi nekk fële ci Gadiaga donc ñaari compagnie yooyu commencé nañu exploité mais euh, am na ay xew-xew yu bees yi nekk ci àddina bi dina tax ñoom it ñu bokk ci li nga xamante ne moom la ñuy réviser mën na nekk que ni tey jii prix pétrole bi biñ diggante bi ñuy xaatim contrat bi ak tey changé na ensuite dañu déggoo ni que euh, ku nekk li ngay jot ci lu ñu root ci pétrole euh, teg nañ ko te am na doxalin yu bees yu xew ci àddina bi boobu yooyu itam war na mën a tax tey jii ñu saytuwaat contrat bi donc yooyu yëpp gëm naa ne dinañ bokk ci processus boobu. ci wàllum napp mi tamit ndaxte licence de pêche doon na loo xamante ni problème dëgg la goo xamante ne yàgg nañ ko yi yàbbee. xam Sénégal dafa am côte yu bu gudd bu nga xam li ko jëlee Saint-Louis ba sor yëpp ndox la donc euh, bu fekkante ne lépp dem na ci nu mu war a demee euh, li jëm ci wàllu jën moom Sénégal du ko. raflet waaye dafa fekk ni tey jii dañu joxe ay licence de pêche ay compagnie internationale yoo xam ne ñoom ñooy ñëw napp si suñu géej gi jël lépp li nga xamante ne nappkat yi mënoon nañu ko fi am donc nguur gu bees gi gis na ni contrat yooyu ñu leen joxoon ñooñu euh, contrat yi la yoo xam ne li ci Sénégal di am néew na trop par rapport ak ñooñu lu ñuy am hmm. donc ñu gis ni yooyu itam war na mën a bokk ci lu ñuy réviser hmm. donte ni fu nekk nii euh, waruñu wax ci ci secteur napp gi ak naturel yeneen secteur yëpp li jëm ci télécommunication euh, Sénégal da ci signé ay contrat ak ñeneen li jëm ci transport sax Sénégal da ci signé ay contrat ak yeneen réew donc yooyu yëpp war nañu mën a toog discuter ko xool lan la ci Sénégal di am lan la ñu waroon am loo xam ne dañ koy not daan ci pays amuñu ko woon. alors lan mooy orientation yi ci war. waaw orientation yi nga xamante ne nguur gi war na ko jël en compte benn bi mooy bu ñu tegee comité bi. ñu xam nu fexe ba comité bi ku ne bis ci boppam maanaam mën na nekk waa opposition bokk ci euh, waa société civile bokk ci boroomi xam-xam ñi nga xamante ne xam nañ dara ci wàllu contrat yi ñëw bokk ci ñeneen ñu am expérience donte ni nekkuñu ci biir Sénégal moom lañ leen ci boole ndax seen xam-xam moo ñu amal solo loolu war na bokk ci beneen orientation bu ñuy teg beneen ñaareel orientation bi mooy ñu fexe déterminer lu ñu tuddee périmètre bu leer maanaam yan contrat ñu bëgg a waxal ak lu tax. su ko defee ñu xam comptant bu nekk lan lañ ci bëgg a saytu ndax lempo bi la ñu bëgg saytu ndax engagement li jëm ci wàllu euh, sàmm alam gi lañ bëgg saytu wala lan la ci population yi di gagné loolu lañ bëgg saytu yépp ñu teg ko su ko defee lépp leer ku ne xam fan nga jëm pour éviter risques yi nga xamante ne tudd nañ ko sànq. alors nag mhm. ñaari. fànn yooyu gëm naa ni coow du bëri. nan nga gisee nag fi mu toll nii ressources naturelles yi gouvernance gi nga xamante ne ñu ngi ciy def jamono ji rawatina njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay waaw njiitu réew mi ci fin mars la jëlee pouvoir bi donc mu ngi si ñetteel wala ñeenteelu weer ci bopp réew mi donc euh, teel nañu naan ni mu doxalee wala ni mu doxaleewul baaxul waaye nag gëm nañ ni xëy na jéego yu mu tegagum euh, dal na xel parce que gis nañ ni li ñu njëkk a def mooy. wàcc si terrain bi dem visiter gisante saafante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy dund opération dem visiter compagnie si seen i bopp wax ak ñoom ñooñu wax leen ñoom it si nan la ñuy liggéeyee gis nañ fan yële président ci boppam moo demal boppam ba ci plateforme bu ñuy exploiter pétrole bi ministre bi def na lu mel noonu ci yeneen zone yi yëpp donc loolu xëy na dal na xel pour le moment donte ni teel ñu mën a wax ni ni mu doxalee baax na wala baax. Demba Seydi jërëjëf may fàttali rek ni yow ay coordonnateur régional bu ONG Publiez ce que yi nekk ci Afrique francophone ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation.